Ça ah, sama gars na ngeen def gëj nañoo gisee donc euh, dañu bëgg concentrer concentré rek comme toujours Inch'Allah. allah tey ñu bëgg a waxtaan mais thème bi déjà comme nous ma leen ko wax la comme nous ma leen ko la il faut ñu arrêter Macky Sall balaa muy trop tard parce que aussi c'est important ñu xamné Sénégal ñun ñëpp ñoko ko té te euh, lu ñëpp bokk il faut ñu war ko sam pour ñëpp man ko njariñoo euh amna ay réalité yu dox suñu dëkk tay defe yeen ñëpp yeen a ngi koy gis yeen ñëpp yeen a ngi jàkkaarloo ak mom mais en fait niñ koy défé comme toujours fu nek ci aduna bi rek ñu né the back stop with the boss manam mbir mi ci kaw la wara commencer Euh, dégg naa lu bari ñu koy def toujours ñuy ŋaññ sénégalais yi di waxante di vraiment di yaakaar ne sénégalais yi ñooy problème mu Sénégal déedéet xam nga institution bu ne dafa am lu ko jiitu d'accord euh, ñu bari dañuy bëgg a jël ay exemple ci temps yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam boo waxee rek ñu ne euh, dañuy wax yàlla dafa ne ci alxuraan maanaam. population bu ne njit bi ñu mérito la leen di jox euh, mais il faut ngeen fàttale ko aussi que lu bari dafa moderniser wu tay parce que tay bo xolé on est en 2019 ku nekk yor na smartphone té li amul won temps yonent bi donc ñoo xol rek li nga xamné mo moo convenient pour ñun ñu jël ko euh, ñi ñuy nous avons des moyens de communication. Nous avons des moyens de falsification. Nous avons des moyens pour la société. Macky Sall est un peu plus Sénégal. Nous, Sénégalais, peut-être ça nous prendra 10 ans pour nous défendre. Mais Macky Sall est un peu Sénégal de 5 minutes. Parce que 5 minutes, je vais parler à la télévision Sénégal, je vais faire ce que je veux ak li mu bëgg mu dox ci dëkk bi ak ñi nga xam ne contrôlé la leen média bi ñu génn def li nga xam ne loolu la bëgg donc que les sénégalais le savent ou pas euh, projet de loi bi Macky Sall bëgg a jàllale euh, bis bu ko jàllalee c'est tout simplement pour yóbbu waat ñu ci yeneen élection yoo xam ne maanaam tey élection député yi ñu waroon am locales yi ñu waroon am déjà rek en deux mille vingt deux duñ ko am. dinañu jéem bu wax ba 2024 parce que fay xallil bopam yoon pour nous mu mënee doonaat buuru réew 2024 lolu rek lay lijjanti Macky Sall wul lu doy sénégalais parce que comme nima ma koy waxé euh, toujours euh, beaucoup nak comme toujours euh, nga wax doomu adama yi comprendre ñu jappé ko xaste xasuñu ko mais il n'est pas gros pour rien du tout dafa fokalé il faut ngeen comprendre lolu il faut ngeen xamné que Macky c'est un groupement Macky Sall boo xoolee biir bi nga xool biiru rakk bi ak biiru waa këram yépp nga xam ne ay foqale lañu ils sont gourmands de nature kooku gourmand nag boo bokkee moom lekk il faut nga mesurer lekk bi d'une manière où dina jeex à un moment donné parce que du suur moom boo ko fa bàyyee tey Macky Sall mën naa lekk fii ba suba te du suur parce que naturellement xel bi dara dara du ci dugg donc que les sénégalais le savent ou pas bu nous génnul ñu arrêté Macky Sall tey comme ni ko Algérie défé, comme ni ko Soudan défé, comme ni ko Rwanda bi ngén di tok tay di ko wala Kagame nangam nangam dañu xex deret bu bari tuuru fa nañu yalla musal ci lolu ci Sénégal c'est parce qu'ils avaient attendu trop tard dañu xaar trop tard ñu soga a Sénégal xeex dinañ ko def ala kulli alin muy tey di suba di déwén dinañ ko def loolu rek mooy dëgg mu neex dinañ ko def neexuñu dinañ ko def donc bu yeboo ñu jàmmaarloo ak xeex bi ñu def ko parce que buñ ko deful léegi dina trop tard dinañu tollu foo xam ne dinañ ko bëgg def mais fekk Macky Sall il est assez près Il na préparé wu na parce que en fait calculer dictateur bu ñëw ci réew tok calculer ni muy avancer réew je da calculer mom ni muy gëna togalé bopam donc Macky Sall lu muy que ci c'est pour calculer seulement mom ni muy d'undé ak njabootam ci jamm sénégalais ko xam nga damay waxtaan ak sama sénégalais euh ma vraiment euh, sëñ bi war ngeen mu ne ma parce que Macky sàll président bu mel ni moom masul am ci histoire Sénégal ma ne ko lu lu tax nga wax loolu mu ne parce que boo xoolee infrastructure Sénégal bi li mu liggéey ci Sénégal tey euh, dafay drôle xam nga yenn kàddu yi yëpp duñu pour tontu mais lii c'est important pour defe naa yéen ñii yuuxu xanaa gisoo làmpa ngi tàkk fu ne xanaa gisoo tali bu bees am na fu ne ngeen xam exactement ci yan kuu lañu amee tali yooyu ak ci yan kuu la ñu amee làmp yu bees yooyu ngeen di yuuxu xam nga tey euh, mi ngi mel ni société bu bees nga taxawal ko téeméeri at ci ginnaaw boo bëggee ubbi société boo bëggoon leb million sax kenn mënu la koo lebal parce que institution yi nekkuñu woon sur place manam tay disons temps Senghor bu Senghor bëggoon leb cinq 500 milliards ci touru Sénégal pour défendre Sénégal mënul won possible ci possi mënul won yombé ni mu yombé tay tay ak Sénégal ni mu mel Macky Sall bunt bu mu feug bu fa lebee 500 milliards ñu lebal koko dans cinq minutes parce que Sénégal amna garantie yi nga xamné mom la soxla pour fay bor yoyu mais quand même da di fàtte ne ñooñu muy dem lebi ñooñu xamuñu ne que sénégalais yi dañ ko détester de cette manière xamuñu ne que njiit bu incompétent la parce que boo demee ci west bi tey njiitu réew moom mooy dogalal réewam njiitu réew moom mooy jël yenn décision yi mais dëkk yu mel ni Amérique dañu def séparation de pouvoir président de la république tey bu bëggoon dogal yenn dogal yi te jaarul yoon soit justice bi dinañ ko tere wala congrès bi tere ko mais Sénégal Macky Sall lim ñu bëgg indil tey ci constitution yu bees yi mooy lu mu wax rek mooy am lu mu waxul du am daanaka loolu moo fa newoon déjà mais daf ko bëgg a daf ko gën a bëgg a gra aggravé maanaam li nekkoon Sénégal déjà mooy li bonoon la Macky Sall la gën a bën a moom la bëgg a gën a bonal ke sénégalais yi xam ko ou pas li bonoon démb moom la gën a bonal moom la gën a bëgg a bonal parce que xam nga ngeen jéggal ma toujours dama koy wax nee naa leen. Euh, doomu aadama tey buy teg jullit yi ñun fu ñu toogee tey ñu yuuxu ko wax rek mu ne la yàlla laa gëm ak yonent bi euh, la plupart des nous peut-être xamuñu sax kuy yàlla wala yonent parce que nee nañu nga mën a jaamu dara sax da dangay xam li ngay jaamu lan la tey nga mën a fal président de la république erreur bi ñu njëkk def mooy on ne connaissait pas qui on allait élure à la tête du peuple euh, problème bi ñu ci dal rek mooy defe naa on a appris notre leçon très tôt mais ngeen delluwaat encore ñu delluwaat ci élection yi euh, bala ñu ñuy wat waxu constitution bi ngeen xol tay président de la république bu ñew sénégalais yi yépp ànd ak yow fal la à 64 64 pour cent mandat Macky Sall bu njëkk 64 à 65 euh, même Macky Sall bobu ñëwaat ay élection te booba manam, fichier bi nga xamné moko ko fal c'était en ligne dañ ko tek en ligne pour aduna bi yëpp gis ko aduna bi yëpp mën a décider aduna yëpp bu décider résultat yi leer nañ mu génn ce même président vous a dit que dañuy demaat élection mais fichier bi nga xam ne moom mooy wane lii dëgg duma ko teg léegi loolu man maa koy lakk après léegi jouru élection wala quelques jours de l'élection laa leen di tegal benn fichier te du nekk en ligne wala fenn moom mooy décider kan mooy doon gagnant wala kuy doon perdant les conscients savent que déjà le jeu a été truqué manam lepp li nga xam mom mo wara jaral a jaarale élection yoon Macky Sall falsifié na ko ba pare. parce que fanga nga nee rek li nga xam ne moy dogal élection duma ko tek ci yoon doomu adama yeb gis ko moy manam nga dem ci boutique ah diw dama bëgg jënd fukki saaku ceeb mu jox la fukki mu ne la ana kalisbi bi nga ne mi ngi ci enveloppe bi waaye bàyyil ba ma dugal ceeb bi sama oto bu ma sama kër nga soog ubi ubbi xaalis baa ngi xam nga dans l'intelligence benn businessman du ko def nobody is gonna do that il faut nga nga calculer sa ceeb mu leer la ne xaalis la la jox te njëgu ceeb bi la la jox nga parce que tey kooku bu yóbboo sa marchandise fekk xaalis bi la jox mu ñibbi mu ñibbi nga ubbi enveloppe bi jot on a accepté d'aller aux élections ak Macky ñu leer ko ne maanaam li ñu war a teg jaar yoon yëpp jaarale ko yoon jaaralewu ko yoon mu nax ñu ci loolu même Macky Sall bi woote dialogue dialogue de banditisme laa ko tuddee man parce que xam naa ne ay foutaise la Macky Sall gëmul li muy wax. Macky Sall ku mu woo dialogue daf lay ne nga ñëw toog séddoo bukki la bukki ku mu woote ndaje day ne ñëw leen ñu daje waaye léegi dañuy séddoo man maay ëppale man maay am li ci bari li ci des yéen mën ngeen jël soo leen bëggee ngeen jël soo leen bëggul ngeen déjà boo xoolee nit ku mel noonu ci société rek xam nga ni am nga problème you have a problème kooku la ñu yor ci bopp réew mi bu ko neexee tey mu indi loi bu bees bu subaa mu indiwaat beneen boo leen ko bàyyee bu jàllale bii bu subaa Macky Sall léegi ci anam ci kanam boo leen ko mayee mu jàllale loi yoo xam ne da leen di ne njaboot képp ku santul Sall mënul hériter Sénégal képp ku santul fay Sall mënuloo jiite Mana lo doon buru Sénégal Macky Sall boko mayon mayoon mu def loolu xam nga amna ñak xel manam mom moy yeggal doomu adama ci yenn fànn yi parce que lu ñak xel tay boko xolé ci Macky Sall nekku ko euh, doomu adama nga ñew di ñaan ay doomu adama ne dama bëgg ngeen may ma bi situation bang ba ko soxla ci ñom ngay dem di waxtaan ak ñom bis bu ne nga len di laaj sen xalaat ngay waxtaan ak ñoom ngay partager ak ñoom ay idée yow nga toll foo xam ne tey nga ne sa maqaama dafa kawe jaratul wax nga ne yow da ngay jëf rek doo wax doo waxate kenn léegi li ngay def mooy dangay jëf mais ay nit ngay jëfal doomu aadama yi nga xam ne ñoo la fa tegoon Sénégal du royaume Sénégal du empire Sénégal ñi ko xam yépp xam nañ ne république la réew la boo xam ne da ngay fal président tay bu la neexul yeneen élection bu ñëwee nga sanctionné ko nga folli falaat keneen Macky Sall loolu yàlla joxoon ñu sax maanaam ci ngor ci Sénégal teggi na ko teg fale pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ñu am président de la République buy jóg créer ay institution boppam créer infrastructure boppam créer lépp boppam pour yàq suñu réew maanaam tey élection Sénégal yi li ko Macky Sall moo ko sosal boppam Macky Sall mooy ndax sénégalais yi Macky bu tegee loo xam ne lu dul naka si noonu bu sénégalais yi waxee mu indi ay char le teg mu ne daf leen di xëbal mais ce que je vous fais li ma leen di xamloo te waxoon naa leen ko démb ma waxaat leen ko tey xeex ba sa xeexandoo bi ñàkkee doole moo gën a yomb xeex bàyyi ba ka ngay xeexal mu doolew Macky Sall sénégalais yaa ngi koy dooleel ñu ngi koy may tey loo xam ne ñaari at ñetti at ci kanam duñ ko mën a arrêté we can't stop him anymore dina yegg foo xam ne doomu sénégalais dinañ ko bëgg a arrêté day fekk mu trop tard am nañu temps ba tey moo tax ñuy ñaan ñëpp suba suba la kaat na ñëpp génn ñu ne leen ngeen daje assemblée nationale nee nañu na ñëpp génn ñu dem projet de loi bii Macky Sall bëgg a passé sénégalais yi nañ ko bañ nañ ko bañ nañu bañ xam nga bañ akaru nyari ñaari affaire yu différent la xam nga man kat la mais ken gisuma may sanni sama bop ci kanamu camion mu may fiir quand même donc duma xaru mais damay bañ donc sénégalais yi nañu bañ Macky Sall il n'est pas assez con sénégalais yi di génn di ñaxtu di naqarlu mu len di fétal wala mu len di def dara lolu bu len ko jaxlé mais quand même newuñu kenn mu dem troubler publiquement newuñu kenn mu dem toj dara wala yak dara waxuñu kenen waxuñu loolu liñ leen wax mooy ngeen dem ngeen lijjanti li ngeen xam ne moom moo nekk suñu dëkk li nekk suñu dëkk te jubul loolu lañ leen wax ñu dem jubbanti ko c'est ça les réalités il faut ngeen comprendre ne 90% des sénégalais les les vrais sénégalais ñi seen xel di nag xam nañ ne Macky Sall fi mu ñu jëmale baaxul xam nga tey bu may toog ñu ne la Macky Sall dafa gagné ay élections. Euh, c'est comme dire que Madi Kenya a gagné une élection. C'est la même chose. Parce que tay, Barki Dembo Ndiaye, biñ koy wax doomu sénégalais yi diko tankamlu. Madi Kenya yeen xam ngeen ne doomu sénégalais yépp xam nañ ne amul parrainage. Yeen xam ngeen ne Madi Kenya ken parrainé wu Xam nga sénégalais li ñuy wax la nee ñun dañuy York d'accord dinañu York mais duñu sos li ñuy wax comme li njëlbeen bi li ñuy wax réalité la c'est ça les réalités. ngeen jéggal wolof bi xaw ma jub na xaw ma jubut ngeen comprendre ko noonu mais li may expliquer mooy ngeen comprendre ne le même nombre que madike Niang a eu au parrainage même nombre boobu la am ci élection yi xam nga ndeysaan booy sàcc yàlla bu la bëggee feeñal ci àdduna bu mujj bii dalay feeñal flagrant parce que loolu moo jàpp Macky Sall li dal Macky Sall tey mooy loolu li dal Macky Sall mooy exactement li nga xam ne moom lañ doon jooy mooy tey dafa ñëw mu falsifier ay élection Sénégal mu sàcc ay élection Sénégal flagramment mom ci bopam mu leeral bopam. parce que tout simplement nee dem len rek ngeen calculer Macky le même nombre qu'il a eu au parrainage même nombre bobu la am ci élection yi même nombre bi Madické Niang au parrainage même nombre bobu la euh, euh, Madické Niang am ci élection euh, élection donc ce qui veut dire tout simplement ci mathématique bu simple boo xoolee li Macky Sall def copie conforme parrainage am la jël indiwaat ko ci élection yi mais lan moo mayoon Macky Sall loolu ci parrainage lan moo mayoon loolu Macky Sall ci parrainage xalaat leen ko mooy parrainage xam nga da ngay jël xaalis nga dugg ci biir borom këru nit nga jox ko xaalis bi nga ne ko signeel ma mu signeel la nga jël ay filiation c'est même filiations qu'il avait même filiation yoy la bande bi utiliser pour dóor ñu ci ay élection ay élection donc calculer leen ne téeméeri yone buñ ko dématon ak Macky Sall ay élection sans reformer li nga xamné mom moy mooy euh, euh, suñu kiiwu politique bi du changer Et will never change so xeexoon ak Macky Sall 100 fois bu dee même loi yi ñoo sur place daf lay gañe mënuloo koo gagner c'est pas possible parce que déjà xex day jaar yone Macky Sall bëggul kenn bëggul kenn bëggul kenn budul boppam Macky Sall boppam rek la gëm gëmul keneen bëggul dara ci Sénégal boo leen xoolee tey Macky sàll nee na leen moom moo gañe euh, dakaar moo gañe dëkku àdduna bi yëpp mais pourtant de comme ni ko nit ñi di waxee nit ñu baax ñi ñi intelligent buñ ci ko bàyyee xel mais Macky Sall ministre am Dakar yi képp ku mu fa faloon folli na la position bu ñu amoon jëlee na leen fa man de mënumaa comprendre lu baax luy am succès nga ko fay jëlee c'est pas possible c'est pas possible xam nga bu ñu nee déjà rek bu ñu nee dañuy wax dëgg rek mënuñu ne lépp loo xam ne dafa nekk ci biir dëkk bi te du yoon teg nañ ko fa mais Macky sàll nee na ñooñu nga xam ne ñoo ko doon liggéeyal yépp te defaluñ ko dara lu jub dindi na leen fa donc nee ma lan man lan laa mënul comprendre mooy yow naka ngay jëlee ay nit yoo xam ne succès rek lañ lay indil nga leen di dàq donc ñaari faute mo meuna am donc soit nous sénégalais inconscients, inconscient wala Macky Sall mo inconscient amna bu meuna am té yaakaaru 12 millions de sénégalais yeb dañoo dof c'est pas possible xana peut-être man nga né 900 dañoo dof ci 12 millions 12 millions wala 15 millions 15 millions de sénégalais C'est dofuñu lolu moy li lèr il faut bien comprendre en 2019 avons ci une situation yo nous dañoo wara mëna togati di négocier avec Macky Sall loolu mënta jàll projet de loi bii nag boo leen toogee ci seen biir kër yi boo leen toogee ci seen biir kër yi ba Macky Sall jàllale ko bu yeboo rek yéen ci seen bopp les mêmes sénégalais yi nga xam ne yéen a toogoon xam nga élection yi man ba léegi bëgguma euh, nit dina vraiment sénégalais yi ñoo génnoon euh, votel Macky Sall loolu man xam naa ne c'est pas possible ay noo daal parce que tamit nañu waxante ay réalité man sama bopp lay jëlee exemple chaque jour Euh, diaspora bi mom moy décider élection Sénégal depuis année Sénégal sancho ba à bu mané diaspora bi ñokoy décider parce que li ñuy wax la on on on injecte mille milliards au Sénégal chaque année té xamna né ne kenn ku nekk ci ñun amna baat kërëm donc akas néw ñun ñi nekk ci suñu kër yi bu ñu jëlee suñu ay téléphone woote suñu wa kër donc xam nañu ñoom déjà s'en vote ni muy démé ce n'est pas possible que man rek dans 15 millions de Sénégalais j'ai fait décider un village disons dans ma di exemple man de qui ma xam nit ñi ma xam yep, nit ñi ma xam te jege ma yépp xam naa ne voté la ñu Macky Sall loolu xam naa ko parce que am naa ci preuve donc Macky Sall ta gagné ay élection ci yon. mais comme mon amul gatche amul kersa sàcc na ay élection comme mon amul gatche amul kersa def na li neex yépp ci Sénégal dégguloo ben opposant wax man blâmé wu ma mais booy wax da ngay wax ak nit xam nga toujours dañuy yuuxu ñu ne lu tax opposition bi génn ñu ba léegi ah léegi toujours dañuy ne mais lu tax doomu sénégalais yëpp opposition yi lu tax génn ñu wax mais opposition bi lan la ñuy génn wax xam nga boo seqee ak gor mën ngaa toog nga waxtaan ak moom mu comprendre la mais boo seqee ak jaam jarul ngeen di toog di waxtaan parce que li ngay waxtaan ak moom yëpp du ko respecté donc point point final lan ngay waxtaan ak moom amul dara loo xam ne war nga ko waxtaan ak moom amul benn sens waxtaan ak Macky Sall ak waxtaan ak sa mur bi nekk sa kër moo yem boo nammee waxtaan te kenn desul ku dul Macky Sall ci waxtaan demal nga waxtaan ak sa loolu moo leer loolu rek moo leer boo amul kenn koo waxtaanal ci àdduna ku dul Macky Sall demal sa kër nga seetaan ak nga seet sa seetu nga waxtu parce que Macky Sall du nit ku nit mën a waxtaanal parce que amul understanding amul common sense xam nga common sense doomu aadama warul sax intelligent waxuñu intelligence ñëpp amuñu ko mais common sense la plupart de nous am nañ ko parce que common sense mooy lan mooy tey nga waroon dugal sa loxo ci biir safara ñëpp xam nañ ne safara day lakke sax xam na ko dof sax am na common sense xam na ne safara day lakke xam na ne ndox day tooyal dof xam na yooyu donc ce qui veut dire que Macky Sall dof yi ñoo ko tane he has no common sense donc doomu sénégalais bu war a génn nga yaakaar ne yow da nga war a mën a jël waxtaan dem waxtaanee ko ak Macky Sall vraiment nga bañ a yàq sa waxtaan parce que Macky Sall n'est pas une personne qui est sain Sall amul amul understanding parce que en 2019 ku xamul ne projet de loi bu Macky Sall mën a placer fii ci Sénégal mu nekk ci faveur ak lu mu mën a changer mom bu ko intelligence am mayul ne dañu réviser wat projet de loi bobu changer ko bu mom dañ ko takal ci ay affaire ñu japp ko donc il est un fou Macky Sall bu xamul lolu mais moy amul common sense Macky Sall moo tëj Khalifa Sall Macky Sall mo tej Karim Wade Macky Sall mo tej ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ko wax mu ne dafa satch ki mu ne dafa def li man boudé Sénégal dañ ci tej nit dama lay jox exemple boudé Macky Sall tay dafa tej disons Khalifa Sall ndax sàcc mais man bu ñu paree nu naka la ñuy def ak Macky ci boppam wala frère am bi ñooñu ñaata at lañ leen di tëj xanaa ku nekk di mille en lañ koy tëj parce que bu dee Macky Sall dafa ne Aliou Sall dafa sàcc tey damay jox exemple Aliou Sall am amin euh, Khalifa Sall dafa sàcc frère Macky Sall bi ci boppam Aliou Sall Alioune Sall bu Macky Sall wàccoon kooku ñaata at lañ ko war a tëj. beneen wax bi que les sénégalais le savent ou boobu beneen réalité la euh, temps yi yëpp ñu ngi koy laam-laame ci internet bi euh, xam leen ne Macky Sall comme ni mu ko defee yeneen opposants yëpp waxuñu sax ay éliminer ay opposants loolu dépassé na ko mais comme ni mu jàppee woon mu Karim Wade faagaagal ko comme ni mu jàppee euh, Khalifa Ababacar Sall faagaagal ko ak yeneen yi ak ñoom Barthélémy Dias ak ñooñu yëpp ni mu leen jàppee éliminer leen. Macky Sall tout simplement li muy utiliser Khalifa Sall tey pion de négociation rek la koy utiliser.